salaamaaleykum mbokku àdduna salaamaaleykum mbokku Sénégal ñoo ngi leen nuyu di leen ziyaara tey nag ñoo ngi fii presque café ci benn remise de drapeau boo xamante ne Assane Ndiaye moo ko amal Bawol production drapeau bi nag mu ngi war a nekk drapeau ki nga xamante ne mooy Omar Bass mu am fi représentant mu am fi mu tudd Modou Dieng. kon am na ñeneen ñoo xamante ne tey ñoo ngi fi Daouda moo ngi fi bu Bawol production moom tey moo fi teewal Bawol production Assane Ndiaye teew fi teewal fi promoteurs yi. ki nga xamante tamit mooy Maguette bu Sénat assurance moom moo ngi fi ak ñaari mbëri yoo xamante ne war nañoo bëri ci jour boobu noonu ñaari mbër lañuy la woo mbokk yi ñu dugg ci ci ci li nga xamante ne mooy remise de drapeau bi balaa ñuy wax ak ñaari mbër balaa ñuy wax ak ñi nga xamante ne ñooy ñi ñu tuddee làmb ji ak waa assurance Sénat assurance. jibi jibi jibi jibi mooy jib rek. sa waay ziar naa la. da ngaa war a bëri. kan ngay bëreel. noo hmm. koy wax. non dama koy wax rek xam nga mu ñëw dëggal boppam xam nga mu ñëw def li ma war a def rek daan ko dem ñibbi. Hmm. waaw. Gambien bëgg naa la. waaw ñoo ziar boobu. di santaat sponsor bi bu baax a baax non loolu mu wax moom garaawul quoi coo jibul dama koy bàyyi bis la rek. wooteel. waaw di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di woo gépp gépp ñu ñëw si làmb ji le treize bool suur bool production bi xam ne dana neex dana yëngu quoi xam nga di xaar ñëpp daal si jàmm ak salaam. aywa waaw waaw di nuyu gars yi di woo ñëpp rek comme gars yi niñ koy defee ñun mobilisation bi mu ñëppal solo ñun booy ñu ne mën a kii duñu ay noonu ay adversaire lañ ñun chaque jour foo ñu gis ñu ne duul ma doon ñooy ànd benn lañ kon ni muy mobiliser lañ war a mobiliser indi lu bëri si stade bi bëri daan ay xale lañ warul yàgg. jaajëf ba duñu woowagul ñaar ñi ñaar ñi nga xamante ne ñoo war a bëri combat bi grand combat di fàttale ne tamit combat bi la 13 day am samedi biir di ñëw ci stadium Iba Mar Diop waaye woo ki nga xamante ne mooy Modou Dieng di représentant Omar Bass Modou Dieng représentant ki nga xamante ne mooy Omar Bass waa auzu billahi mina seytaan rajim ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant suñu yaakaar tey ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waa ñun ñoo fi présenté Omar Bass di sunu xarit di sunu lépp yàlla dogal tey bis bi mu waroon koo teewe waaye mu fekk ko pari te koo xamul noo koy def nam la def moo tax muy sunu xar di sunu lépp ne ma mut jëng yaa mu doy yaa may teewal te yaa ma doy foor lool lool moo waral sunu teewaay fii tey jii mm-hmm. waaw ñuy sant yàlla nag di julli ci yonent bi di xam ne bin koo darajaalee bis bi ba tey bon mu ne moom tamit bis bi daanaka du koy tiim rek waaye da koy jëlaat jox ko ñoo xamante ne nii leen di woo ci bis bi waa Thiès bis baa ngi noonu samedi 13 mai la samedi 13 mai lay doon samedi 13 mai lay doon doomi réew mi la Omar Bass di nit ku yiw di nit ku baax di dimbalee ci zaahir di dimbalee ci baatin ñun ñi muy somm doom nday loolu moo tax ñu teew fii kon bis baa ngi noonu ñuy ñaan Sénégal gépp waajal ko waaye daal na ngeen xam ne géejawaay bu soobee alxuraan da ngeen xam ne Assane Ndiaye tudd na bis bu koo xamante ne nii mën na ko tudd ngir ne nii léppam Serigne Touba la léppam dimbalee la ci zaahir léppam dimbalee la ci baatin kon bis baa ngi noonu ñu waajandoo ko di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp tawfeex jaa ngeen jëf jaajëf tey mooy mooy wax laa daaw da waaw bi mooy ñaata journée bi bi mooy tournée mooy ñaar. waaw de yëpp xam nga li ko waral mooy xam nga Baol Production dafa def carrière nag ci làmb 19 ans de carrière la def tey booy seet promoteur yi fi nekk ñëpp tey ñaar nga fi tudd dama bañ a jum mais ñaar ko la kenn nga fi tuddoo xam tey léegi carrière bi Baol def ci làmb defu ko loolu moo war événement yu bari boo gisee ñu bari boo gisee tey ñu wuy si carrière bi Baol dafa def carrière ci làmb dafa ko c'est-à-dire ñun bi muy ñëw ci làmb xëcciwul jël paie mais na bokk ci course bi jàpp naa waaw waaw mais xëcciwuñu jël paie mais tey dem nañ ba tey boo tuddee Bawol boo tuddee làmb tey foo nga tudd Bawol production loolu nag askan wi ñoo ko xam tey boo saa bu ngootee ñoom ñoo wusi ndax xam na ne tey lu nu am ak lu nu mën bu ñu gënee jàppale incha allah li ngeen soxla ci làmb ñoo leen ko mën a jox espoir yi ngeen bëree saa bu ñu bëree làmb bi saa bu ñu tëggee yéen ñëpp daw ñëw li ko waral nag leen la rek mooy collaboration xam ngeen ne liy def nan noonu xam nan ko incha allah rabbi day jox rendez-vous pour le treize incha allah ah, ku dikki da gis rek bëri comme ni ñu ko mën rek lu mun ci rek ngeen kontaan ngeen bëgg des na ko def incha allah rabbi taala kontaan na maa ngi yëpp Leewtoo Lamine waa Leewtoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf le treize ku ñëw di nga gis bëre di nga gis xeex di nga gis ambiance waaye nag ku tëgg làmb soxla nga sponsor Maguette moo fi toogal waa Sénat assurance moom tamit dañ koy woo mu ñëw wax moom tamit lan lañ nar a jàppee ci journée boobu noonu ndax ñooy di nuyu mbokki ndakaaru di nuyu mbokki Sénégal boo gisee ñaari mbër yi teew sol sponsor Sénat assurance Assane Ndiaye Baol production tëgg làmb lii mooy Sénégal lii mooy développement réew mi ndax xale yi yëpp ku ci ne da nga yore njaboot yore papa yore yaay ñun nag ñu nekk société boo xam ni Sénat assurance la tudd hmm. nekk ay sénégalais à cent pour cent sénégalais nekk ay doomi réew mi li nga xam ne moom mooy jóge naa la yaa ngi si jàmm noo noo nar a waajalee samedi wala noo waajalee samedi 13 mai comme sa adversaire nekku fi nga jàkkaarloo ak moom ci caméra bi nga wax ko li nga koy wax mu dégg moosu billah bismillah ina wala yàlla jërëjëf borom Touba ginnaaw ma sant yàlla julli ci yéen di sant sama ñaari waajur di sant nag sama waa dëkk yëpp waaw waa Sambaay Newraan Séssène Ndion xam nga Touba Toul gépp maa leen di woo ci combat bi wax seen doom mooy préparé combat ma ñaanal ñu man awa bu Malika la Amadou a ba xam turam. Amadou Diop xam naa ko baax a baax a baax. moom est yaa gën a leer rek bëgg naa la. yaakaarloo ne rek. bismillaahi rahmaani rahiim. maa sant yàlla julli si leen di sant sama ñaari waajur. du nuyu ñu fi teew ñëpp. du nuyu du nuyu euh, assurance di mu xamal lu mu mën rek. yàlla ko mën la. combat bi combat bi dama xam dama war a wane loo xam te nii dama xam daaw bëriwu ma ren dama war a wane lu leer nañ gars xam ne man xam nga sama xel a ci làmb ji te man sama place fa ma newoon laa bëgg jël lu ko double di nuyu sama maire ji bi caw reefan di ko wax mu ñu jàpp ci billet yi jënd ko waaw wasalaam wasalaam Amérique yaa wax foofu nga nekkoon def nga fa ñaata mois si def cinq mois cinq mois lan ak lan nga liggéey ba nga fa nekkee demu entraîné lekk ba suur lekk ci halal futi lekk ci chicken yi silipi dace silipi ñu ngi ciy ñëwaat ci slip yi ziar naa la Matar Mbaye. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim dinaa ma sant yàlla jul si yonte bi damay sant ñi nga xam ni euh, damay ranu orange sama mbokk ma xam ni mbëru làmb day rendre hommage benn benn mbër xaw ma ban mbari la nag ah gis naa ko. kii maa moom ay doomu nday lañ waaw. daa génn àdduna waaw na ko yàlla yërëm yàlla na yàlla yërëm waaw maa ñaanal mu jógee nii ak fi mu jëm yàlla na dem àjjana amin di ñaanal mu jógee nii ak fi mu jëm ne yàlla na dem àjjana amin di ñaanal ka nga xam ni sama mbokk papa la dara ànd ak sama papa guddeeg bëccëg mooy sës si moom yàlla na ko yàlla yërëm na ko yàlla yërëm. yàlla na yàlla yërëm ñoom ñëpp Paa Youssou Ba mais kii amul lu may wax ak moom. tax xam nga la moo ñu boole. ah waaw xaalis damaa bañ a def année balance mais kii du man ak moom. foo teg loolu. barki sëriñ Touba du man ak moom te bu jour ba dinañ ko wone naa ko wane ba mu xam ni moom du moom barki sëriñ Touba. mooy tontul boppam. kii day wax lu ko neex kii mënul kii mënul bëreeg mbër mu ma ëpp coow. kii man maa ko may chance pour te kii maa ko dimbali kii problème a tax ma jël ko combat bi kii maa ko mën maa ko doole maa ko daqe maa ko fit bokkuñu kii ba muy ñëw reefan di ma fa fekk andi grand frère am saafi ma dóor ko ci bët mu daanu moom moo ko andiwoon boobu moom mu ngi toj lamb ji boobu man bëri boobu maay bëri sama dëkk. kon xam na la kii moom la gën a xam fii téeméer yoon li muy wax ni eggu ko fii. xam na wala xamul. dinañ ko wane yàggatul dara. pardon déggu saaga saaga yàkkamtee xeex la yàggatul bara le 13 avril lépp dina leer si kàttanu yàlla suñu borom laa la wax nañu xam kan moo ma ne dina xam ndax moom daa demoon États-Unis liggéey wala dafa demoon liggéey. ah loolu si bu soobee yàlla incha allah. Ah. dinaa ko wan ne ko roy dina pire man sama yaram vitamine D ya ci ne bokkuma ak moom kii dafa sonn man damay noppalu li ma lekk ak li ma kii bokkuma ak moom. kii maa ko doole kii maa ko doole doo man barke maam Cheikh Fall nañu bàyyi suñu jiinee suñu dëkk bii li ñu am rek di ko yóbbu fee naan ay hamburger laay lekk yooyu déedéet tiitaroo sa dëkk man laa gëm man sama dëkk laa tiitaroo ba may dee waaw balaa dëkk bi yéen ñaar yéen ñaar li ngeen di wax foog ngeen taxaw jëflante samp jaaga xeex est-ce que fas nga yéen a xeex ak moom taxaw xeex waaye kon kii yow moom laay ragal ndax dina xeex ak man yàlla xam na du yow di nga xeex. barke Cheikh Fallou yow di nga xeex yow di nga xeex yow. kii ku mos doomu daanu mosul wàcce kenn. yow di nga xeex laa bu taxawee barke Cheikh Fallou ma ko doomu daanu. wallaahi bu taxawee doomu daanu bu ci kattan. yaakaar naa leen ñii taxul leen ni. puusi leen barke Serigne Touba da baax di wax. nga ne mooy doon ma daanu. wallaahi boo xeexee ma dóor la daanu. jour ba yàggatul. barki borom Touba yàggatul. di woo waa Thiès yëpp. di woo waa di sant waa Thiès. di leen gën a gërëmaat lii la ñuy combat bi ni ñu siy jàppee man maa ngi koy gis barki Serigne Touba di woo waa ngeexox gi yëpp si yaa ngi di woo waa làmb teewul fi nañ la ak lan ngay wax moo àdduna yi maa ngi lay nuyu di bu baax Lamine di nuyu waa Presse fii sama kër la heure bu ma neex laa fii ñëw def remise drapeau maa ngi gërëm Sénégal yëpp di wax nag ko moom si kàttanu yàlla nañ ko jël liggéey ko nu mu gën a rafetee maa ngi sant ñëpp di leen gërëm jël nuyoo bi yëpp teg ko ci loxol Pape Abdou Fall ñu ngi ñu ko mais maa ngi gërëm nag waa Sanar assurance di gërëm waa Lonase di gërëm waa Sipa di gërëm waa Savon la Main di gërëm waa Del Monte dañ may jàppale soo gisee ma man affiche yu mel nii dañ ciy jàpp waa Presse Café di si jàpp yaa ngi dégg may jël lu neex di ko jox sénégalais yi di ko jox amateurs yi mais la treize euh, di nga gis leneen la ci kàttanu yàlla. samedi treize mai. samedi treize mai. stadium Iba Mar beneen xar kanamu làmb. jox ñëpp foofu ci kàttanu yàlla. mais am na combat bu taxaw fëgal a. double moteur ñuy defee seen première euh, présentation ci kàttanu yàlla mais Ahmed borom presse sama doom ne loo wax. la wax ci le 13. nañ joxante rendez-vous le 13 rek incha allah. maa ngi remercier waa Baol production. merci kooku moom musuma gis promoteur bu mel nii koo xam ne day jàppale vraiment. bëre bi da koy jàppale dans toutes les formes. day nekk présent fu nekk il est là il est là il est présent. Mm. et loolu moom mënuloo bañ a seetaan nit koo xam ne day def pour. développement pour développement lutte lutte sénégalaise bi. je le félicite et je félicite tout le monde par rapport à ça. kon le treize invité nañ la. mais ñëw kay. bon présence c'est normal. <laughs> incha allah et du courage à nos deux lutteurs quoi incha allah. et ambulance. saa non balaa nara. fii sama restaurant la. waaw ah. Ahmed ci seet yi jàpp ci jàppal ci billet yi Ahmed. waaw ah. jàkkaarloo na ngay jàkkaarloo. dogal waaw Ahmed. saa yi bombardier ko jàppale bombardier. def benn appel. Bombardier koy jàppale de. waaw mais Bombardier sunu grand la. Bombardier xam na ne man champion la. Bombardier sunu grand la kii dafa daw laqu ji mbuur man maay fii sama grand Tafatine yoo xam dégg Tafatine moo waaw moo defal Bombardier bagage. yaa <laughs> ngi dégg kon nag kii dama ko defal bagage ci kattanu yàlla ak mbaaxam bokkuñu man waa Réfane la di sant waa Réfane réew maa Touba Toul Ndareb di leen woo bool bool yi xam nga Touba Toul Réfane réew maa woon Ndareb xombol dem ba xam nga. maa ngi fay sant sant Ousseynou. kii na moytu. kii na fa moytu bu baax. moytu dara da ngay wax lu neex. barke Serigne Touba na moytu seen sama lépp la da ngay wax billaay la Ousseynou sama lijaay la. da lay da da da ngaa def sama kër ñëw. da nga def yow dañ lay nax Ousseynou billahi di la nax barke Serigne Fall di la nax di la nax waaye di ma nax billahi di la nax dafa dem dafa ma nax kon di yàqu nga barke borom billahi yàqu nga waaye jërëjëf yàqu nga barke Serigne Fall Ousseynou waaye dimbali ma nga ma yàqu baax na yow dimbali ma ngay baax waaw kay c'est bon c'est bon di santaat Mame Gour Diouf Mame Gour Diouf ni jaayam déggu li ma la wax kii kii waaw yow xam nga kii dafa xam ma ko sama nijaay maa ko sama nijaay la yow da ngaa dof bay jaxase ak mbokk bay jaxase ak mbokk. am la ma la billaahi walay taala boo sulee boo tax naa duma ba nga. parce que maam Seero Fall yow lay duma ba nga toog yow xam nga ne yow. billaahi walaahi ba nga toog yow. yow ambulance nañ ko denc ba samedi nañ ko denc ba samedi nañ ko denc ba samedi samedi waaw léegi jeex na léegi nañ ko denc ba Touba bu si lu ma doon man Deka laa dëkk man du ma ragal déggul ma man Deka laa dëkk dafa nga Deka waaw jeex na jeex na eh. waaw jeex na jeex na benn baal euh, maa ngi gërëm presse bi yëpp di gërëm presse bi bu baax a baax rawatina waa TFM waa waa waa waa Kewel Info xam nga ak waa Lew Lutte TV Leewtoo TV maa ngi leen di gërëm bu baax a baax. samay partenaire lañ yéen a ciy jàpp bu baax. mais di gërëm nag waa staff Baol production bi yëpp. daaw de jiite ko ñoom Sawru ñoom Cheikh Diaw ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ah. di nuyu waa CNG bi bu baax a baax seen liggéey rafet na jox ñëpp rendez-vous rek la treize. le treize combat bi jeex ma jox leen beneen bu ko dàq. balaa ñuy wóor. non maa la wax lii incha allah. incha allah aywa jërëjëf. waaw après.